ansubillahi mina seytaane rajim yi bisimilahi rahmaani rahim yi ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mouhamed sant suñ ñaari waajur sant suñ wàcc la Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziyaare yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di war Waarwi TV nekk aru ci Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di nuyu di ziyaare suñu kilifa Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou di nuyu di ziyaare baax Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mbooleem kilifa diine wala kilifa aada gu nekk ci département bu Mbacké bi na dëkk bu sell bii di Touba. di leen nuyu baax di leen ziyaate di leen baalu ak saa su ne ñu taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy am di ko topp këru diine yi nga xam ne mi ngi ci dëkk bu sell bii di Touba tey jii nag nekk fii ci xayra di fukki fan ak ñeent ci weeru tamxarit di màggal gi nga xam ne moom la ñu màggalal Serigne Modou bu Dieng moom Serigne Fallou Mbacké nekk premier xalifa Serigne Fallou génn àddina 2000 màggal gi nag dëppoo fukki fan ak ñeent yi nekk bis bi nga xam ne Serigne Fallou Mbacké mu baax ma yàlla na yàlla yokk ay leeram tas ni ci barkeem ci la gërëmoon doomam jooju muy Serigne moodu bu Dieng ñu naan ko Serigne Modou Moustapha Fallou ci la ko gërëm moom ñu tànn ko nag di ko ko ci màggalal mbooleem njaboot gi nag ñëpp ñëw na ndax dafa am lu fi jaaroon ba waraloon li amoon daaw nag gis nga woote nañ ko ni ñu ko wootee nag dëppoo na ak or norme yi nga xam ne moom lañ wax ñu gën di ko moytandiku di gën sant bu baax baax Serigne Abo Moubaraka moom Serigne Fallou di ko sant bu baax te di ko gërëm ndax bi ba léegi mi ngi téye njaboot gi kenn ku nekk rek gis sëñ Modou Bousso Dieng moom nga deful waaye taxawaay ba nga xam ne sëriñ Modou Bousso Dieng taxawoon na ko ci njaboot gi ak taalibe ak dëkkandoo yi sëriñ Abo Moubaraka taxawee na ko te mata na ko di nuyu mboolem njabootu sëriñ Fallou gépp nag mu yaa xam gu góor yowati gu jigéen di nuyu mboolem njabootu sëriñ Modou Bousso Dieng ci bopp ba sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Modou Bousso Dieng di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu toog fi at yu bëree bëree bëri jiite njaboot gi nga xam ne mooy njabootu baayam kon nag ñu dugg ci biir woon leen mbokki jullit yi nga xam ne mbokki taalibe yi fu ne la doomu aadama jóge ñëw ziyaare si ci bis bu sell bi nga xam ne bisum ñaan la bisum ngëneel la ma ànd ak sama cameraman bu baax bi Alsaan Saane ñu dugg ci biir woon leen ziyaare yi naka la ñuy ziyaare ci bis bu sell bi Sëriñ Modou Moustapha Fallilou sët la ci Bamba di doomi Seex Fallu ñu duppee ko Moustapha Seex Moustapha ko jàngal tarbiya ko def na ci moom jikkoy nabil Mustapha bisub altine la ñépp jooyo wutali barabub seex fallu ba ñu xam ni ñàkk nañ Mustapha jëfi sëriñ moo du ci duniya ker la suul du ko tere feeñ yal na yàlla yokku leeri Mustapha sañ-sañ ba daa yéeme woon sëriñ moo du sañ-sañ ba daa yéeme woon sañ-sañ ba woon ba daawul nege benn aajo ëllëg lu wax borom bi daal koy def ngir Moustapha col gu riis te yees Boniface ak marocain duñ ko ree ci kudul Moustapha ree neex ja ak jib ju taaru ja talum wax du deñ waat naa ni waliyu kaamil nga yow Moustapha. di sant soxna Awa mi nga xam ne mooy suñu xalifa ci kër sëñ Modou Bousso Dieng waaw ñu ngi koy ñaanal daal gudd fan ak wér mboole mu jullit doole xaadima rasul barke Alaaji Fall taxawaayam rafet na lool sëñ Modou mënoon naa dem. mu bàyyi ñu waaye bàyyi wuñ man Kaolack laa dëkk fii laa nekkoon ba jóge fi waaye daa mel ne moom mën a bokk ndey ak waaye kon nag maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñëpp waa xayra gépp maa ngi leen di sant rawati gi nag soxna Awa Gadiaga mii nga xam ne mooy suñu xalifa mooy suñu mag jàpp ñu teew ñoo bàyyi yàlla nañu yàgg doxante ay teraanga ci loolu xaadim rasul yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla fal ko cere mboolem jullit nag barke alaaji fàllilu sant nañ ma ci mën a wax bëri na ndax mooy suñu yaay suñu bàyyi suñu wut boole ñoo moom te booba léegi bàyyi wuñu diñu toppatoo fuñ nekk mu nekk fa duñu toppatoo ba toppatoo suñuy doom di ko ñaana fan lu gudd ak wér lépp ci war ci ñu rek def nañu ko defal nañu ko mënuñu koo fay di ko gërëm di gërëm ak njabootam di gërëm soxna Moussi Mbacke waaw ndax lépp nag moom la ku jàppale waajuram la sant naa ñëpp nag boo limee da ngay juum di ko ñaanal fan lu gudd ak jël bàkki suñ su dee réccu lu suñ bàyyi ba doon booleeg moom waaw soxna Fama Mbacke te boppam bàyyi Fall la def boppam moom mii laxasaay gi du ko tekki benn yoon benn yoon du ko ko tekki kon nag liñ li day yàlla ak sëñ Tuubaa dund ak jàmm barkeb sëriñ Fall sëñ Fall taxawu la sëñ Mourou bu si nekk taxawu fi liggéey ci kër gii bu soobee sëriñ Tuubaa Mbàkke réerul réerul dina feeñ ba jëgub dara kàmm yàlla la sëriñ Tuubaa fay ci sama xol bii nag laa ko tippee. yaa kon Europe ñàkk nañ Moustapha Modou ya daan ñëw. manatuñoo yónnee ngir ñàkki këyit ak kiris bu tar ba ñooña yëg nañ demuk Moustapha sëriñ Moodu dongay tarbiya la wéetal dalee na yërëmoon defoon leen ni boppam Moustapha moo woote kas rajab miire kër sëriñ Fallu taxawalaat daara yi kii mooy jàmbaar te moo mat